barki Serigne Bamba Serigne Saliou Thioune Serigne Saliou Thioune lakk na dëkk bi Serigne Saliou Thioune toj na réew mi Serigne Saliou Thioune jox nañu ndam sëriñ Saliou Thioune dooleel nañu barki sëriñ Bamba lii dafa ëpp eh ñemewu maa dugg ci nag yi de ñemewu maa dugg ci nag yi ñemewu maa dugg ci nag lii lii maa jël lépp maa jël lépp lii c'est grave lii def lii ndam kese la lii lii kenn xamul lu doon barki alxuraanu karim lii lii kenn xamul lu doon lii moom lii moom ku ne war na cee jàngee jëfee ndigal soo jëfee ndigal lu ne xoolal nag yi fële munum ñememaa dem di jël ay nag dugguma ci biir miinoon na ay nag waaye fi mu ne nii nag yi dañ ma miinatul ndax doonatuma buuse lii garaaw na barke Sëriñ Bamba xulal lii la ilaha illallah cey Sëriñ Saaliw Cuun mii toj na dëkk bi di ah la ilaha illallah deux trois cent laa waxoon ñu kontaan. allahumma salli tey Serigne Touba ah, lii lii lépp rek ndi jëfee ndigal rek boo jëfee ndigal daal Serigne Touba teg ci yow loxo barke Serigne Bamba xam nga ni lii kenn xamul lii lu mu doon lii kenn xamul lu mu doon xoolal nag yi. la ilaha illallah waay yow nag yi de waa lii la man damaa waaru man. ñun am nañu ndam waay ah lii dafa ëpp waay barki Sëriñ Bamba waaye am nañu ndam waay Thiaw Thiaw am nañu ndam waay lii lii dafa garaaw waay lii dafa doy waar waay lii dafa yéeme waay jëfee ndigal rek am sax jëfee ndigal yan nag nga naan déedéet waay nag yi jeex na nga ne waay am nañu ñëw <laughs> waaye nag yi jeex na bul wax nag waay sa diggante yàlla waaye déet waay ña nga ne la kañ ña nga ne la. laa ilaaha illallaah nag yi bari na de yéen a nag yéen a ngi gis nag yi lii dafa garaaw lii dafa garaaw waay lii dafa nag yi dafa rafet waay waaw yée ña dem de la ilaha illallah waaw yàgg lii kenn musu koo gis foo koy gisee yàgg lii kenn musu koo gis mais lii foo koy gisee yàgg lii lan la lii mbirum Serigne Touba barke Serigne Bamba nde boo nekkee ci kaw ndigal ah. sëñ Mountakha digal la waaw nga jëfe nga jëfe nga jëfe ko ndigal ah, yoonu murit ndigal la tudd waaw lii ngay am boo jëfee daal moom boo jëfee lii nga am waaw sëñ Muntaxa di bég. barke Serigne Bamba Serigne di bég. waaw waaw murid yi fu ñu toog di bég. barke Serigne Bamba Amérique di kontaan. Ah, ah, ah. ay waay tey ku dem Amérique. ay waay tey ku dem cinquante états yi. gis nga loolu barke Serigne jàmbaar yaa ngi nii dañoo tas adara ngi nii barke Sëriñ Bamba adara ngi nii su ma mësaan su ma mësaan di dem cant samedi ba Cheikh bi ne ana adara barke Sëriñ Bamba ku mësaan xam jëwriñ adara mi ngi nii de ni mu amee woon yaram ndeysaan da ngay xam ne jeex na tax billaay wallaay da ngay xam ne lii Sëriñ Tuubaa rek la ndeysaan waaye lii boo ko doon fay dëgg la ah lii kenn amul pay gi dëgg la lii nii rek la demee dëgg la ah, lu mel ni ci àddina li kenn mosu koo gis barki borom Tuubaa jugal jugal jugal jugal waaw ah jugal da ngaa war a ñoo la gën a sonn fuuf waaw màggalu Sëriñ Tuubaa gi xam nga ni waroo toog ëpp na barki Sëriñ Bamba la ilaha illallah lii de mosu ndigal daal ku ko jëfewut ku ne barki Sëriñ Bamba di nga bëgg am lii ko jëfewut ku ne barki Sëriñ Bamba di nga bëgg am lii mu tëla xam nga ni lii lii lii du neen lii ñaanub sëriñ Muntaxa Basiru dëgg la lii yii nag. imaginel 500000 wala jël leen rek cinq 500000 multiplié par mil 2600 nag 500000 multiplié par 2600 nag loolu dafa garaaw barke sëriñ Bamba la ilaha illallah laf cat laf catooy cat. barke yonent bi barke sëñ Tuba lii kenn da ko mës a gis. mais jëfee ndigal dafa baax. ndigal ndigalay lépp. barke sëñ Bamba. Boucher ndigalay lépp. li ko may wayu Serigne Saliou ndigal cuun moo ko may doomu sëñ Béthio te wayewul ndigal moo ne ndax dana am lii. déedéet barke sëñ. <laughs> xam nga ni lii ëpp na de. barke borom Tuba.